retour de parquet xam nga retour de parquet yi ñuy def d'habitude ñu ngi koy def fii commissariat central bu Dakar nga war faa fanaan ba le lendemain ñu dem présenter waat la le juge ci carlage bi nii ngay fanaan y a pas de nag y a pas de matelas y gros cafards et gros rats ma yaakaar ne foo xam ne nii ci condition yooyu lañuy teg ay doomu aadama ñu fay war a fanaan ki yor service boobu le minimum mooy même bu dee ay maire gàddu mais mu ut ci une cinquantaine teg ko foofu nit ñi am lu ñuy lal kafaar yi mooy mbóot yi mbóot yi mais ñu xeex ak mbóot yi kaña yi ñu xeex ak kaña yi ah, kon mais ay kaña yuy egg ci ay giri yi foofu la am puisque ndesitu lekk yi bu ngeen jëndee ay sandwich ak yooyu gars yi dañu la naan lonk ko ci kaw boo ko sànnee kaña yi dañuy ñëw jël si ko te après buñ paree suñu kaw la ñuy jëm ñu lonk mbuus yi takk ko ci kaw noonu gis nga kaña yi doo xam fan la ñuy jaar dañuy éeg ba ca kaw fa ko lonk ci giri yi ca kaw di nga dégg ñu naan kërëj di xotti mbuus yi ma ne nag vraiment pour pour pour jox euh, gëdd doomu aadama yi fii ne y un minimum quand même à faire au niveau du commissariat central pour les retours de parquet et vraiment loolu maa ngi koy ñaan